pexe yi bëri na weer yi di ñëw kenn ku nekk na fagaru waajal boppam takku ndax ña ngay pexe ci wàllu terrorisme wàllu terrorisme fabriqué nañu seeni dossier yu leen neex jàpp ay nit barki démb rek kenn ci ñi ñu jàpp naan dañ leen di tuddee xaw ma lan spécial woote na de la prison ne fi mu ne nii bés bu ne dina ñëw def leen pression ne leen changer leen seen déclaration wax leen rek ni Ousmane Sonko moo ne suñu gannaaw moo ñu yónni moo ñu defloo moo ñu transféré xaalis bi bu ko defee ñu yóbbu leen ci procureur out arrangement démb rek tey wax naa ci ak avocat yi ma wax nii ndem si yàlla François Mancabou la tax ñu torturer ko ba bakkanam jaar fa li may wax nii ay ñi ko jege ñoo ma ne moom moo leen ko wax ñu ko jege ci ay conseillers am ne dañ ko ne il faut nga signer PV boo xam ne da ngay wax ni yow dangay liggéey ak Ousmane Sonko que sooy dem Casamance d'ailleurs moom ngay dem seeti pour jël ay instructions. que yow en tant que expert yaa doon organiser moo tax daaw bi ñu bëggee dugg këram ñu amoon jafe-jafe yow yaay wook momoo nga xam ne ci samay garde port la di ko jox ay instruction parce que yow xam nga suñuy technique mu lànk ne leen lii duma ko mus a signé parce que musuma gis Ousmane Sonko lu dul ci télé xaw ma ko musuma wax ak moom ci téléphone te man om d'honneur la ci deret ak ci formation kon duma ko signé looloo indi toroxal yiñ ko toroxal ba bakkanam rot ci may seere ci kanamu famiyam ne ñoom ñëpp war nañoo am fierté ci nit ku mel noonu yàlla métiim xam na ni musuma gis François Mancabou waaye ñaanoon naa yàlla mu daj dajale ma xamle ma ak nit ñu mel noonu parce que réew na léegi ci senegal ña ngay fenk dossier terrorisme bis bu ne ñu jàpp benn nit yokk ci ña ngay fenk dossier rébellion déggoon ngeen fii Ousmane al naka jaata Alkusin jaata Kabili ñu dem jël ko ne kooku it ñoo ngi koy togg pour fexe ba avouer ko ay mbir ne ko waxal ni yow am nga ay lien ak Ousmane Sonko ña ngay fenk dossier 94 milliards ndax ñoom avocat yi ñu dem di di saisir sax ay ay français ak yooyu xamuñu ni man yéeg naa ko dossier 94 milliards dossier siif dem nañ ba xam ni benn avocat bu mat avocat Sénégal du dugg siifu ñàkk fayda ñu dem di uti ay avocat France te consulat bi ci boppam kuy liggéey ci consulat bi moom mooy porté loolu ci dossiers yoo xam ne ne nañ c'est des dossiers privés ña ngay waajal loolu également façon dossier bu ne ñu ngi koy waajal nee nañu xañ nañu léegi Ousmane Sonko immunité parlementaire donc saa su génnee di wax dañoo am seen benn laboratoire boo xam ne kàdd gu ne ñu ngi koy saytu pour ban kàddu la ñu mën a wëlbati dem tribunal pour am diffusion de fausse nouvelle wala diffamation parce que xam ngeen lan moo yitte bi du jàpp Ousmane Sonko tëj ko kaso de ndax Ousmane Sonko biir kaso moo gën a nekk xal nag Ousmane Sonko ci biti du loolu mooy seen problème seen problème mooy nu ñu fexe baam benn condamnation même su dee au sursi pour que Ousmane Sonko dootul nekk candidat en 2024